loolu la jóge tey sëriñ si ñëw bu baax a baax a baax waaye première édition bi ñu tuddee ko Cheikh Mouhamadul Moustapha al Khalifatu Rachidul Awal ma bëgg a wax bokk yi nga xam ni ñoo taxawal lii ak bokk yi ne ci dëkk bi ak ku leen di dégg mu am pas-pasu fekk si leen ci liggéey bi te jàppale leen Cheikh Mouhamadul Moustapha bi mu taxawalee liggéeyu sëñ tubaa bii di mébétam mi gën a rëy ginnaawam te mooy jumaay ji te sëñ tubaa kaaba la daan wax dafa waxoon ni dëgmal daa ko te duma dëpp lu ma am dinaa ko ci def lu ma waay jox danaa ko ko ci defal képp koo xam ne nag feeñ nga ci dootoo nëbbu waaye ku ci nëbbu dootoo feeñ loola nag walaabal na ci lu ñuy defal sëñ tubaa lu ne motax mu waxon ni lépp bépp liggey bu yëkëti ngir Seigne Touba fal yunfiq soo saatin min saatihi wa man khudira alayhi rizquhu fal yun fal yunfiq bi ma ataahu Allah la yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha lépp lu ñu dindi dañ koy liggey le Seigne Touba Seigne Modou ne képp ku sa wërsëg yaatu na feñ ci saw defi ku sa wërsëg néew la nga joxe ca la nga am ndax yàlla ku ne la mu la joxoon xam na na mu toll te loolu rek la laa laajee te mbokk yi ëllëg day dëgg la bu néewee bu baree bu lewee bu ca leneen duggee lu mën a xew dañ ko fi bàyyi ndax indaale ko fi woon waaye dañ ko fi bàyyi ba noppi bu nu demee ñu du du lijjanti nu nu defal ba am ko ak fu ñu ko dugal may wax ni amul amul wenn lay wu gën a jub te gën a dëgër te gën a yaakaaru te gën a tonu wu ëllëg mooy man day wërsëg bi ma amoon liggéeyal naa ci sëñ Touba yi kër sëñ Touba gii ñu naan maa ngi yéene ñëpp maa ngi yéene ñëpp ci yiw wi nga xam ni mun naa wérulu sudóor indil nañ ko waa Yaraax ngir ngir fekk si leen ci liggéey bi te jàpp ci te xam ne lu ci waay def boppam may wax wa mu naaw su dóor nag ginnaaw sëñ Modou Sall lañ tuddé première édition bi ñu xam ni sun borom tabaraka wa taala bi mu ne ya ayuhan naas message bu universel la joxé waye nak ba muy wax xel la waxal xel yalla bu waxanam nit bo dafay julli dula wacc waaye yàlla xel la waxal kon nag képp koo xam ni la ngay def da nga caa doonale sëñ Mourou Moussa dara rawati nga tàmbali jiital ko la ngay def da nga cee jiital sama xel li yàlla bëgg ku amum xel ko man li yàlla santaane ku amum xel ko man te li yàlla santaane te bëgg ko ca la sëñ Touba nekkan ca la woote kon li ñuy def nañ ci jiital am xel teraanga ji gën a rëy ci teraanga ju yàlla yi teral doomu aadama mooy xel bu rafet moo tax abdul abdullahi ibnu mubaarak nee na xel mu rafet moomu bu la ko yàlla joxee na nga xam ni teraanga ji gën a rëy ci lu yàlla yi joxe yàlla jox na la ko ñu ne ko boo ko amul mu ne na nga wuti ku ko am na nga wuti ko am xel mu rafet ngay diisoog moom te di ko déggu ñu ne ko bu yàlla dogalee amoo loolu ci sa entourage mu ni boobaa da nga gàttu tànk te gàttu làmmiñ ginnaaw amoo xel mu rafet amoo ci sa entourage ku ko ab koy diisool abdullahi ibnu mubarak dee na nga gàttu tànk te gàttu làmmiñ ñu ni ko boo ko mënul mu ni yàlla na nga gaaw a dee ndax boo guddee fan empreinte yu rek nga fi bàyyi amoo xel mu rafet amoo koy diisool ci sa entourage ba noppi doo toog doo noppi nee na boo guddee fan empreinte yu ñaaw rek nga fi bay seigne Modou sall ak seigne Touba da koo muy jëfëndiko ab xelam ndax li seigne Touba bëgg boroom xela ko ba kon ngeen jital ci projet bi ak engagement yi ak liggéey bi jëfëndiko ay xel am xel nag buñ koy jëfëndiko ci lu mel ni muy kër seigne Touba ta kër seigne Touba seigne Touba waxon ni waj al buyooti kullaha masajida sëñ Tuubaa nee na sama kër yëpp ay jàkka la sama kër yëpp dara yi jàkka la yor jàkka nag te mooy kër sëñ Tuubaa sëñ Murtada radiyallaahu anhu joxe woon na définition ba boo ma sànni kër sëñ Tuubaa sax danaan kër lislaam kër lislaam nag mooy kuk lislaam ku mën a doon na yëg ni am na fi wàccuwaay am na fi cër li feet ñu fiy def génnul lislaam na nga xam lu mën a doon sëñ Tuubaa la su koy def la ci jiitu mooy ci li ñuy defal sëñ Touba mooy julli yi nañ koy jooxe ca waxtu yi ko war a jooxe ci anam yëg da na barab bi am ci tàmbali bi ci tàmbali bi na am njàngum alxuraan ak diin lu ca dolli ko door caa dellu man gis naa ndax euh, damay wax ni moomale sëñ Touba kër ak sëñ Touba nu ngu ko moom daa bokkul saa boo moomalee sëñ tubaa kër te programme ba génn defii ni sëñ tubaa yaa ko moomale sëñ tubaa waaye nungu ko moom man gis naa kër sëñ tubaa wala barab yu ñu moomale sëñ tubaa yu ñuy askanale sëñ tubaa waxuma sax ñu fonk julli waaye dañ koo sàggane léeg dañ lay wax ni waxtaane sëñ tubaa moo gën a for julli loolu ak ku la ko mën a wax ak ku la ko mën a wax xaw moom fu mu ko teg man waaye li ma wóor mooy jëlewu ko ci sëñ Touba tey ñimewu ko wax ci kanam sëñ Touba jëlewu ko ci sëñ Touba te ñimewu ko wax ci kanam sëñ Touba kon barab bu ñuy moomali sëñ Touba tey rafet njort ni sëñ Touba dina na ko nungoo moom das koy def barabu jaamukaay yàlla das koy def barabu xettaliku kaay xettaliku ci ruux xettaliku ci pas-pas te loolu kat bu amee sëñ tubaa ci boppam mooy taxawul boppam la bi gis nga alxuraan ak sëñ Touba dañoo bokk ay defin sëñ tubaa juróomi kaamilam yi mu daan jàngloo daa waxan ñi koy jàng ni ko nañu xool nañu calculer li leen du doy ci ab dund masalan lan lañu war a dunde ci weer mu gàddul leen ko ngir ñu yittewoo rek alxuraan waaye bi ñu waxtaanee ba ñëw ci tubaa sëñ tubaa da leen a delloo da leen a gàddu ni leen alxuraan ci boppam moo ma wax ni bàyyi ma ak ñoom man ku ma yor ma yor la loolu nag sëñ tubaa niroon na ko ak alxuraan lépp looy defal sëñ tubaa te pas-pas ba rafet te am pas-pas ak yéene jaamu yi fa yàlla dong ak xett li fa bindeef yi tax loolu sëñ tubaa koy gàddul bopp yéene dong nga ci ab yow waaye bu teree ne te taxawaalu day jàpp ne léeg-léeg ci dugg sëñ tubaa mane na fi mane na feneen te wul dara kon nak ma ngi wax bokk yi nga xamni ño am yitte ji ba am taxaway bi nañu farlu ta def yitte ba dara bañ ci dug bu ci dara duggul rek sëñ tubaa jël ko bu ci dara duggee sëñ tubaa du bokk du bokk du bokk dara ak lenen kon nak lolu ay cadre yu soññe la yoo xam nañu ñu bayiko xel ta bokk yépp no ngi leen di wo ngir jëm yalla ñu fekk ci leen ci yalla dina bokk ci liggéey yi nga xam ni képp ku ci sëb dërëm dem képp ku ci sëb dërëm dem li fekk kër gi di fi des ñu di ci defar nit ci pas-pas ak jikko yow boo faatuwoon ba muy téeméeri at junni at moo xam foo mën a tëdd saw yiw dal la fa fekk képp ku ci sëb dërëm dem li fekk kër gaa nga fi des di dund loolu day bokk ci sadaxa jaari yi te nit kat bu faatoo aw yoom jeex wu muy mën a jëfal boppam waaye bu fekkee jëfu nga ci kër gi te kër gi di dund bokk yi ne fi di liggéeyal yàlla di fi wut ngërëmul sëñ Tuubaa di fi xett li nit ñi ci pas-pas ak roo foo mën a ne sa bàmmeel sa wàll di la fa fekk sa pourcentage fu ne lay fekk kon nag nanu góorgóorlu te fekk ci bokk yi te jàppale leen te xam ni koñ bi soppiku na dëkk bi soppiku na xéewal wàcc na ci dëkk bi ñi ko fi wàcce ameel ngeen leen jukkal ameel ngeen leen ak cant ameel ngeen leenu ñaan loola nag mooy ñaan geeg cant gi lépp mooy fekk leen ci liggéey bi ci seen yitte ak seenu jot ak seen wërsëg loolu mooy kàddu yi nga xam ni bëggan nañ koo jottali ci tur turu daayira euh, Tayf Minatulaay Yaraax ak njabootu Cheikh Mamadil Moustapha gi nga xam ni ñoo ànd ñëw jëmmal euh, Daarul Xuddoos ci yoon wu jëkk wii ngir ànd ak yéen ci liggéeyu Sëñ Tuubaa bi lis indi ci àddiya bariwul jox nañ ko jëwrin mu di ab tàmbali incha allah fuñ ci toll yi lu suban dees na ko ci def ndax liggéeyu yàlla la boo xam ni nun sëñ tubaa rek lañ mënta ñàkk sañ tubaa rek lañ mënta ñàkk sëñ tubaa mooy koo xam ni nag kenn du ko bëgg ba yàgg nga bañ ko sëñ tubaa kenn du ko bëgg ba yàgg nga bañ ko loo ko gën a miin gën koo bëgg loo ko gën a xam gën koo ragal foo ko seen mu jëm dëgg ko fa yóbbu foo ko fekk dëgg ko fa bàyyi koo fekk fi moom dëgg leen boole lu ngeen wéet wéet doo ko ba du wéttal ku mel noon nag bu la ko yàlla baaxee nga bokk ci moom tamunungu nga bokk ci moom te wan la ni bokk nga ci moom loo koy defal lu ne war nga caa def yitte ak fulla te ku ko dégg war na la caa fekk ci bu bëggee lu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu wilaaya bii ci turu sëriñ Góora ak sëriñ Jàdd ak sëriñ Maam mi ak ñi àndal ñépp teg ko ci loxo surtout maam Cheikh Ibra Fall toog ci baax dana nekk ñépp di ko ñaanal di ñaanal sëriñ am di moom benn ak mboolem jëw lañu ci kër sëriñ Touba yépp di nuyu suñu mbokk yi tijaan yi fi agsi woon doon yëkkati kàddu yi bàyyi ko ci yàlla xam naa ngir njëkkante ak waxtu rek nu war a yëkkati kàddu ci sëriñ Modou Moustapha Gaye Cheikh Moustapha nag ni mel sëñ Tuubaa rek mu yem loolu rek taxul mu mel noonu mag ci njabootu sëñ Tuubaa mel noonu mu mel Seex Mustafaa moo nii Sëriñ Tuubaa daf koo tànn ci biir ñi mu tànn ñëpp waajal ko ci biir ñi mu waajal ñëpp am lu mu bëggoon ci moom ba tax fu ñuy jaarale nit koo nga xam ne sa dund day am njariñ te day tekki foofu ne ko Seexul Xadiim jaarale moom nag ak ñu si Amadou Fadil ak ñu sëriñ bi yar man nag damay faral di wax ne Cheikh ngir nga waxtaan ci rek laajal sa bopp ñetti laaj yi soo ko tontoo ci lu mat danga mën a xam dara ci kanamu sëñ Moodu Moustapha laaj bu njëkk bi mooy màggal yi ñu jëm te tubaab bi àndoon ak Serigne Touba lu mat fanweeri at ak nangam mu nekk seeni loxo keroog ba mu dëkkaalee ak boroomam bu ci tubaab bi mënoon a jot ba yóbbu ko France fa ñu choisir loolu ndax murid gi dana mel ni mu mel day déedéet lay doon suñu demon ba ay 1900 wala 2000 ni xol fu ñu teg jumaay tuba ji tay ndax tuba dana ag bi ak dana mel ni nii déedéet mooy doon prix sekkoo ne amul ku Seexul xadi waajal gannaaw mu taxaw yoon ba murid yépp andalo ci benn waaw di famando di tegalo ba murid daalu mo ci amul ba daalu Salaam amul ba feneen amul ndax mur bi dana àgg fii mu àgg déedéet day tudd ba tey sëñ Mamour wax na ko léegi Cheikh Moustapha am xel rek la jëfandikoo kon dana doy ci bi Cheikhul Khadim dëkkaalee ak boroom sëñ Modou Sa li mu njëkk xam mooy ay bàyyam ñoo fi nekk àndoon ak bàyyam ca Mbàkke Kajoor bu njëkk bi sëñ Massamba mi ci gën a doon tuut tànk mage na ko juróom-benni at kon ñooñu ñu may doon ba seenum sëñ Tuubaa ba noppi cërub doom bi du mànk doon doom ci ñoom loolu leen mu ne cim xel ak teraanga képp laa ko mën a defe moo taxit phase boobu moom Cheikh Moustapha Raye suñu ndax la mu njëkk a def boo juróoma dëkkaale ak boroomam mu toog njaareem des fa jël ko teg ko ci loxo Cheikh Abdoul Bachir ak ña ko ko andil la mu njëkk def mooy dajale wooyu juróom yi bàyyam yi jóg fekkin leen boppam ci jataay bi ba mu leen fekkee li leen wax mooy yéen kat yéen a àndoon sama waajur Cheikhul Khadim te wet ga ngeen waroon a taxawee gépp taxawee ngeen Cheikhul Khadim la doon wax ak yéen di jëflante ak yéen xamal la leen loo xam ne nii ñun ñii mu mel ni sax xamuñu dajale seex si Sëñ Tuubaa defar leen bañ fees del ku ne attan jamono kenn ku ne yëngutu ci barab ba defee ne war ngaa mën a yor jamono bi Cheikh Moustapha dajale leen ñoom ñëpp woolu leen ñëw mu ne leen yéen kat ay taalibe ngeen ndax sëñ ko ay bàyyi ñaar képp nag ñii samay bàyyi lañ ñii ay taalibe lañ ne ci bàyyi yéen ci taalibe ne leen yéen nag ay taalibe ngeen ki ngeen doon topp bi sama way jur am na ñu defar ba lim leen bàyyee xam nañ ko téye nañ ko jàpp nañ ko dund nañ ko ñi nga xam ne nag xamagul kuy Cheikhul Khadim danaa leen xamal lu tax ñu war a liggéeyal sëñ Touba wax lu tax normal liggéeyal mu jóge fa nag dajalewaat seex soos yi ci benn barab sàkkuwaat jataay ba ne leen man kat dañ ma goole woon dénkaane maag yéen ñii kañu boole woon dénkaane ne di Cheikhul Khadim jox na ma tey jii la ñuy dénkaane ma bëggoon nag daje waxtaan xam lu ñuy bëgg a def wóomu kon Cheikh Moustapha dañ fi diggéen kon ku ñemewun diisoo la daal na leen nag ñett laay teg sama diggante gi yéen muy ak ndigal muñ maandu ñett yi laay teg sama diggante gi yéen daal leen ndigal li mooy li Cheikhul Khadim wax ne jox na ma ko loolu mooy ndigal li maandu gi mooy lan soxloo ma alali kenn man ma bu Moustapha lépp lu ma soxla mën naa ko amal sama bopp li ma bokk ak yéen nag te mënuma koo séddoo ak yéen mooy jëm sëñ Tuubaa yi te fépp fu ma jëm daa leen xamal ne maa nga fay jëm te foofa laay woote muñ gi nag ku ma nangu ma ànd yow liggéeyal sëñ Tuubaa ku ma nangul ma jéggal la xam ne da nga ko njëkk ko mujje kon Cheikh Moustapha mu ne sëñ Tuubaa mu xool ko ba mu jógee da caa jawal loolaay lan waajur ko waajur waajur ci yow lenn lépp yaa ko war a jox noonu la def ku ko mas a siyaar si la ñuy njëkk xalaat wet ga nga jóge ñoo romb ci ay kilifaam bu fekkee nee nga ko du muy ndax jaar nga fa siyaare ko nga ne dee di mu la jëlal addi ji nga indi fi man dellu ba ci sama way duwe nga jox ko addi ji desi fii ak sa loxoy kese kon loolu ma sa cee jàngee lu baree bari nga xam ne ku mas a fekk ci dëkk bu la laajee ndax jaar nga ci kilifaam ya nga romb ci wet ga nga jóge boo nee waaw day bëgg kontaan xamal ni jataay bi ne leen moo boole def li ma bëgg sax ci loolu nag ak farlu bu sax daal lépp lu mu yor di ko joxe waaye juróom yooyu di bàyyi na jëkk jox seen wàll lépp lu muy bëgg a def diisoo ci ak ñoom mu mel ne nag lu mel noonu soo ko sëqee ak mag ñu sëñ Tuubaa yare noonu yi sa diggante ak ñoom jàmm rek moo fay moo tax Cheikh Ousmane réussiroon phase boobu ba tax waajur ñoom ñëpp gërëm maam Cheikh Anta mi ñibbi si wax nañ ne ci tukk fañ ko yóbboon sëgu sëñ Modou Mamoun ak mbooloo ma Ndakaaru la ñëw di ko teer tubaab bi dem wàcce ko Gosaas sëñ Fallou Galasse la wax na ne maam Cheikh Anta bi mu daru salam Salaam jenn jigéen la fekk muy rot dafa yuuxu sànni paan bi mu ne ko demal Touba ne sama taaw ba ñëw naa Cheikh Modou Moustapha maa ngi Daaru Salaam da koo fekkoon toog pilaan bi waxtaan waaye daa sol dal bi rek moom sëñ Modou jéeg ji pilaan bi du ndox ko wuti Daaru Salaam wata ba da koo nag ba mu agsee nuyu sëñ maam Cheikh Anta ne ko ñëw nga mu ne ko Modou Moustapha ñëw naa mu ne ko ñaan nañ ba tàyyi ni mu ne ko ñëw na Cheikh moussa ne ko sama wayjur kat buñu joggé ci tukki bi jëg ñëw fii daru salam da am bor bo ko lebaloon sol naa dàll wa tey mu jot ma sëkk ma bëgg ko fay ngam nga Cheikh moussa mo def lepp ci bam fa joxe won bi muy jeex ci at yi dong la woon yëggu wax do ngay bokk ne leen ngeen andi neegu makka samp ko daru salam sambal ko maam Cheikh Anta neegu bobé ba nëgë ni kuy xëy ba maam Cheikh Anta dess na ko yëggu sa kër bu rappé dañ ko defara ba maam Sam joxoon na ko noonu yox soxna Maguette Mbacke wax na ne ci loxoom ci la sëñ Moussa wàcce am liggéey amoon na ca ñaari leer kenn ka maam Sam na ko sëñ Modou Moussa tudde ka ca des sëñ Massamba wala sëñ Mamour jaaral ko tudde soo demee ko sëñ daam atta gi jàkk ji ci biir kër gi foofu lañ denc ñaari leer yi sëñ Modou Moussa yooyee kon loolu ay taxawaay la rakkam yi sëñ Tuubaa dénkoon ko bu ma fi jógee sama benn njaboot sama doom bu ci kenn jooy soxla ne su sëñ Tuubaa doon dund am nangam te mu dajale rakkam yépp moom Cheikh Moustapha wuuf leen sëñ Fallu mi ci mag mu ne ko desal Touba di ma jiiteel dëkk bi te di ma ñaanale taalibe yi te loo soxla naa ko yëpp ba sëñ Fallu tudd ko sëñ Modou Boussa Diagne waaye Cheikh Moustapha tudd ko sëñ Fallu daal islam daangi ja ci wetu Taïf muy àndin bu rafet ba sëñ Fallu bis mu xëy si ba di seex Cheikh Moustapha ci ko sëñ Mbàkke Madina ji wuf jumaa ñu naan ko sanc bi mu ñëwee wax sëñ Mat si la ñaanke ne ko yëgul ma saa mat bu baax bi mu dem wax ko sëñ Modou mu ne ko laajal ma ko ba xam ak attaay lu ci gën a bëgg damaa jàpp mu ñëw ne ko nee na kat loolu gën a bëgg sëñ Fallou ne ko anani mu nee ma ne anani moom yëpp la soxla mu ne ko gafe gi indi attaay ji sëñ Fallou xelil boppam gafe gi naan xiimal boppam attaay ba mu jógee dem xool porte-montre Cheikh Moustapha bi jël ci turki da daa sol dem ba tolloog jumaa ji booba baraag bee fi nekk foofal jàkkal barabu sëñ Tuubaa bi muy ñaanal sëñ Mat Sylla ne ko ma Mat Sylla ku la gën a dalum xel yow Fallou Mbacké kuy sa mag borom ji ji nga jóge kuy sa woy ju borom baraag bii nga jàkkaarloo lor kañ ngay agsi ci Fallu Mbàkke doo ma sa agsi ci man mu galas rek moo tax sëñ Modou Bousso wax na ne moo wax dëgg yàlla day dem xewale ci ñun dëgg yàlla ni def tey moom Ibrahima Fall mi nga xam ne mooy sama am yàlla suñu borom bu la sa fan Cheikh ba ñëpp la ñu xam waaw jëf jooju nag laa ñëw mais wane ngeen ko te yéen a ciy dox te kat njaboot maam Cheikh Fall képp ku ci gis ngay gis bu baax ñu ñëw ngay dimbale loolu laay wax saa su ne képp ku ne ci xool seen baax ba ci liggéey rek ñu ngi leen dimbale ñu leen ci ñaanal saa su ne te bu soobee yàlla lépp dina yem incha allah bu neexee yàlla sant nañ la gërëm ñëpp di siyaare ko gërëm ñëpp siyaar yi yëpp rek waaw barke siyaar jërëjëf sant nañ baax at bëriwul waaye jox ko sëñ Tuubaa moo tax sëñ Tuubaa delloo la cër bi daayira bi nag sab daayira la ku gis mbooloo mi ni nga yéexee ñëw ñépp ñëw teew di la teewlu war nañoo xam ni am nga bu mag a mag ci daayira bi ah bu doon ku ko jarut dañ ko naan dañ ko naan liggéey bi mat xam nga bu doon ko jël waxtu yi dañ naan ah sëñ bi kat ne nañ ko ni liggéey bi mat na mu daal di bu ko defee mu tàyyee ñëw waaye nag ñun da ñoo da ñoo yilif da ñoo yilif su su suñ doon dem fii ba fajar dañ lay xaar donte ñun rek lay doon suñu ñëw dem ndax xamuñu looy ëndaat sa yéex a ñëw gii nga yéex a ñëw de man jàpp naa ne yaa ko tey waaw jàpp naa ne yaa ko tey waaw daa am looy xool ci ñun rek waaye nag lii moo li li li nga gis rek moo fi nekk mooy ñun ñun da ngay kenn ci ñun da kenn ci ñun daayira bi sa daayira la ñi fi nekk say taalibe lañ say soppe lañ kon ñu ngi lay ñaanal suñu borom dugal sa fan te wéral la yaakaar naa nag bis bi daaw teewoon nga fi yaag sa mam ju baax bi sëñ Mouhamadou Lamine ren nag wax naa ko jëwriñ parewul woon pour wax la ko ndax dafa am lu ñuy waajal ci kanam te foofu lañ la gën a yittewoo moo taxoon mani woon buñ ko ko wax waaye nag dañoo jekk ba si yàgg ñu xalaat xam ni dana ñaaw loolu ñuy def bis bi te waxuñu ko si si Ibrahima moo tax mani mani jëwri woo ko rek jëru sax ñu fay def woo ko wax ko ne bis bi kat dañ koy def waaye dañ ko oyofal ndax dañuy waajal pause première pierre loolu rek moo tax mu demee nii waaye euh, jàpp gi ñu jàppee say taalibe jàppee ñu euh, sa sa comme sa bopp moo tax nga nga nga oyof sa oyof ji rek daal di ñëw waaw kon liggéey bi nga xam ne moo ñu fi dajale ma nga fee barab ba sotti na barab bi sotti na te itam ñun xam nañ ni. sa ñaan jugewu ci ndax ni mu ni mu ni mu yombee ni mu ñu yombee dafa mujj sax dafa mel ni daf ñoo xaw a jomb ndax yaakaar naa bañ ko sumbee ci yow la njëkk a ñëw ma ànd ak seen soxay bu ka ak ñenn ci comité bi lan ñu wax ci loolu la ñuy dox ba ni ñu amee barab te itam ci loolu la ñuy dox ba niñ koy tabaxee ba mu mel ni seen dund da nga ñoo waxoon ni ñu liggéey bu mel ni ku ko sumb saytaane dina dikkal ci wet bu nekk dina soppali ko ay jëmm di la dikkee ci anam bu nekk léeg-léeg mu dugg seen biir ruuxale leen ku nekk gis sa bopp jekk ba si yàgg nga dellu ginnaaw bàyyi léeg-léeg mu dugg seen biir di ñaawloo njortu seen diggante waaye nag lu mën a xew bu leen dengal mbàkke baatu deng dengal boobu mooy mooy bàq bi nga xam ni tey ku ci nara yaafus buñ ko nee amul déng-déngal na nga dellusiwaat bàq déng-déngal boobu fii moom moom lañ fii bàkkee képp yaaf bépp taalibe bu nara yaafus ba tey jii baat boobu ba tey jii rek ba ñuy nettoyé barabu Sëñ Tuubaa bi saa bu ñun bëggee nit ñi yëngu rek amul déng-déngal la ñuy wax te ñun ci loolu la ñuy dox liggéey bii yombut na nga waxee woon dégg dañ ci déggul la naqari dañ ci gis lu la metti waaye su suñu xel demee ci lan ñu waxoon rek dañ ñu ah sëñ Ibrahima waxoon nañu nangam kon nag daa mel ne daa mel ne baat boobu tey ko woon a jóg loolu moo kàddu googu moo ñu wommat ba ñu agsi te incha allah moom lañuy ñuy tegtaloo ba ba liggéey bi sotti ne colet barab baa ngi ne di barabu suñ Tuubaa sa barabu maam tey jii Barabba def nañu ay sacrifice yu ne ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir waaye tey jii ñun ñii di wax ñépp ba boo ne woon tey jii nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko tëj ba ma dem waxtaan ak Cheikh Mamadou Mountakha dañ koy daal di tëj bàyyi laak yaag sa waajur ndax ñun amuñu sa dara barabu Sëñ Tuubaa kon na nga xamne liggey bi fi la tollu te ñaan ga nga ñaanoon na ko tollanti ndax balaa yàgg bëgg nañ ko tambali ta buñ ko bëggu ñu ci deng dengal bakki ta barab bi nak faaw ma fatali la sabab bi sabab sabab yi nga xamne ndax mbir mu ne dafa am sabab barab bi defuñu ko ngir jaxam dañoo tok gis ni señ Tuubaa ndaw ñang ko koy fii ci Yaraax Kapa waaye li ñuy yëg-yëg dafa am lu ñu manqué sëñ Tuubaa mooy xam sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa xam sëñ Tuubaa mooy xam li mu yoon yu mu tracé te xam sëñ fi mu woote ak fi mu ñu jaarloo gëstu téere xam-xam yi mu bind ñu ne nag téere sëñ yi foofu ñu am barabu sëñ Tuubaa boo xam ne dañ di fa jàngi xam-xam muy téere sëñ yi ñu ne loolu nan la ñuy def ba am ko mooy dañuy amal barabu sëñ Tuubaa boo xam ne sëñ Tuubaa moo ko moom ñu mën fay daje di fa jàng alxuraan di fa jàng xam-xam muy téere sëñ Tuubaa ci lañ waxtaan ne loolu kat lu jafe lay doon ñenn ñi ne loolu mënut a nekk ñu ne ah kay mën na nekk commencé soobu teg suñuy programme di dox di dox ba agsi fii programme yi bañ ko tegee programme yi nga xam ne moom lañ jàppoon ni buñ ko defee ñaari at dinañ am. somme boo xam ni dinañ neex a dimbali pour ñu am barab programme boobu bañ ko tegee Mbàkke ay weer yu néew lañ ci dox ñu ëpp ci ña jaayante woon dellu ginnaaw daal dellu ginnaaw ña jaayante woon ay weer yu néew joxe bàyyi dellu ginnaaw yokkat ñu nit ñu wéetal suñu programme waaye dafa mel ni sëriñ bi roof ñu xel ñu ne kat lii moom tàmbali nañ ko ba noppi te duñ ci dellu ginnaaw léegi nag nañu xool beneen système comme dañoo xalaatoon ni jaayante moo koy sottal te jaayante kat dafa mel ni gars yi boo ci wax ma nga naan dëkk baa daa métteeg daa naqari léegi nañu changer système système bi mooy lan mooy chaque fin de mois nañ organiser caravane ak daayira général caravane bi ñuy organiser dañuy déparé fii jaar Yaraax Seras Dalifort Maris ku ñu romb sa 100 francs nga joxe ku ñu romb ak sa téeméer nga joxe ku ñu romb ak sa 1000 francs sa jooni sa ñaar jooni nga joxe bu ñëw fi day doon som bu takk ñu duggal ci kees buñ njëkkee ba si yàgg daal di wone daayira général daayira général ba dañu nan bu kenn ñëw lo loxoy neen ku ñëw te téeméer na ko andal yoy tamit lañuy dajale mu doon som bu takk ñu duggal ci kees and ko di wër yenn mbokk talibé yi di leen soñi ñuy barkeel mbar mbarke ci loolu la dajale ba am somme bi ñu jëndee kër Sëñ benn millionnaire bu ñu jàppale amul benn millionnaire boo xam da nga ñëw ñu jàppale amul ci suñuy téeméer suñuy ñaar téeméer ci lañ dajale ba am barabu Sëñ te te te itam ci loolu rek lañ yaakaar ba sottal ko def ko ni ni ko sëñ bi bëgg kon loolu ba ñu demee Cheikh Mouhamadou Mountakha daal koy expliqué. li tax ñu bëgg a taxawal kër sëñ Tuubaa bi Cheikh Mouhamadou Mountakha daa jël loxoom jox ma téye sama loxo daa ne ma da ngeen am tawfeex sëñ Tuubaa na seen xel da da ngeen xam ne li ngeen sumb dana àgg ak a koy ànd Cheikh Mouhamadou Mountakha ma waxee loolu laa mujjee bàyyi xel mbindeef ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi bàyyi mujj xel kenn dafa koy wax fii waxaat ko nee naa sama bakkan laa ci teg te ñii ñii ma wax nii xam na ci sama bakkan laa ci teg Sëñ Tuubaa soo koy liggéeyal da bëgg mu sot danga ci teg sa bakkan ndax njabootam gi ñoo ñooy njëkk a jël seeni bakkan di ko gaaraat ci liggéeyam te loolu moo tax ñu agsi fii kon nag ñu ngi sàkku nga ñaan balaa yàgg dinañ dellu Cheikh Mamadou Mountakha laaj ndigal buñ fa jógee dinañ ñëw ci yow def pause première pierre te buñ ko defee incha allah tabax bi day sotti bëgg nañ teewul ñëw fii dañ lay dalal ci kër Sëñ loolu lañ bëgg te loolu day am mbokk yi sëñ Tuubaa faaw ñu koy bàyyi xel ci di ko wóolu li nga sëñ ku ragal ba yow nga dellu ginnaaw nga xam ne doo ko liggéey sëñ Tuubaa da am but ñeme engagement te gar ci sa bakkan mooy tax nga am ndam ci ci kon insha allah déw la ci kër sëñ Tuubaa boobu lañ la fi séenee te loolu mooy am suñu suñu ruug yi suratu te xanaa ruugi bu rotee ñi fi nekk nañ am jom yi defee ko noonu waaye man moom moo fi nekkee loolu noonu lay amee waaw bu rotee nag ah ku yaakus ba loolu amul nga xam ne yow yaa yaakus waaw waaw kon daal ñi ngi sant bu baax euh, ñi ngi sant suñu xool sedd na suñu suñu suñu suñu suñu euh, tabarkalla tabarkalla tabarkalla bu ñu continuer rek waaw man naa man na man na soppeeku ndax suñu xool dafa sedd te tubaa rek la ñuy yëg waaw tubaa rek la ñuy yëg kon daal balaay sa kàddu gàngoo bu ko defee nga ñaaxaat taalibe yi soññuwaat leen bu baax a baax ñu xam liggéey xam liggéeyal sëñ tubaa njariñ bi mu am ci ñun mbokk yi liggéeyal sëñ tubaa Cheikh Mouhamadou Moustapha dafa waxoon ni liggéeyal sëñ tubaa ba samay morom raw nee na bët mus koo gis bon mus ci tege ta sam noppin mus ko deg amul kenn kuy liggéeyal Sëñ Tuubaa ta muy deug ngay ngay ngay ñe kenn wala ngay ngay ngay baye xel kenn waaw ñu baye mu xel kenn Sëñ Tuubaa mi ñi dimbal suñu borom mi ñi teral suñu soxla mi ngi faju bàyyiwuñu xel dara Sëñ Tuubaa lañu ñu ta moy ki ñu ta ñak ku dul Sëñ mën nañ la baye mën na maa xëy te du mujj fenn ndax kenn sama dépense kenn yow ak Sëñ Tuubaa maa ngi xëy di lijjanti sama dépense te li ma bëgg a lekk laay lekk li ma bëgg a naan laay naan Sëñ Tuubaa may deral Sëñ Tuubaa rek laa mën na ñàkk ku du Sëñ Tuubaa mën na maa mën naa xëy bàyyi kon nag mi ngi noonu daanu ma de bu leen jàpp damaa daanu wax ju leer laay wax ku du Sëñ Tuubaa mën naa la bàyyi daanu ma de jóoy daanu wuma li may wax leer na Sëñ Tuubaa fi nekk nañ ko gën a jàpp gën koo fonk gën koo kennal te gën koo nangul nag dana gën a nangul Sëñ Tuubaa ndax ñun dañuy dañuy tuddoo Sëñ Tuubaa saa su nekk te saa su nekk suñu suñu ñàkk jot Sëñ Tuubaa da koy xam boo xoolee li ci bari buñ nee liggéey waa Tuubaa wala nangam ñooy dama temps yi dama ci Tuubaa rek koy xam sa yittee bopp lu ko yooyu nañ ko nañ ko bàyyi xel nañ ko bàyyi xel những vâng, cái điều đó, với những điều mà cần nhất và cần gì nhất được con đời từ dân lục quá là chịu lệ nên quá quá lên mặn những cái điều đấy nên vừa rồi, xong này thì nhất nhưng đến đây ngay đầu nhau đi mua đủ gì tất bà, sẽ là anh muốn xawoon na kersa lool waaye fi ne lépp ndax bi may dugg see dama ne lii de lu mënoon a ñàkk la ndax bis boo xam ne yaa waroon a ñëw taxawoo ko mboolem ku fi ñëw di gan sama gan la ma waroon a teeru taxaw la su ma demee nag ñépp ñëw ba dem may doog ñëw sama kii waaye nag xam naa ne sax bu fekkoon xam ngeen ci liñ bàyyi ko buñ leen woowoon sax da ngeen ne déedéet seen ëpp naa bi waaye nag lii day suñu yëfi bopp te li ma juuf man xam naa yàqin ne bu doon keneen a leen woo ku bokk tam man du egsi ne yiitu mu koy wax sax xamal naa ko sama bopp kon nag day suñu yëfi bopp di seedal waa Konde ak waa Daara yëpp ne euh, lii day suñu yëfi bopp bopp ñu bokk ci daara bi di sant nag bu baax a baax a baax ci jëf ji ak tolluwaay ba euh, li ngeen doon wut suñu borom may leen waaye nag ab tàmbali la maanaam gis nga lu baax adduna bi yu nekk ci dañuy sàkkoo lu baax waaye maanaam looy gën di dem rek day mel ne da ngay doog a tàmbali li ëtt loolu mooy ëllëg fa la ñu jëm bu la fa suñu borom seetoon sa lépp di lu baax xam ne moo dara lu bon lépp lu baax la da nga réccu ndax da nga koy xeeb li ko indi mooy lu baax lu dul doy foofu misaal bi ci bari misaal bi ci saa yi noonu la nekk maanaam àdduna boo nee damay def lu baax saytaane du découragé du bàyyi fi ne buñ demoon ba kër gi nopp ba taxaw ba daara ji di dox ba lépp di dox ci la coono yi di gën a tax bu ñuy weeree def ba ilaa yomb yi waaye ngir ñu mucc ci tamit lu yomb la waaye lu jafe la lu yomb la mooy xol bi nekk ci ñun na booloo te sell te baax na sell mooy na sell suñu diggante yàlla na sell mooy na sell suñu diggante suñuy moroom jàmm bu loolu bu fekkee loolu suñu borom may nañu ko rek liggéeyu seytaane daal di nax saay ndax seytaane yu boole seeni xol buy benn mënut a wax kon waxtu wu nekk nañuy gën a bàyyi xel loolu bu baax a baax di leen sant ci pas-pas bi a baax ndax li ma ci gën a neex mooy li ngeen bàyyi xel ne nit ñi kat bëgg nañ seen tubaab loolu moom lu ma neex a neexal te loolu ñëpp war nañ koo roy ci yéen ndax nit ñi bëgg nañ seen tubaab waaye xamuñu kan mooy seen suñu taxaa day wax ne xasida yi ngeen di jàng ba mu leen jooyloo te xamu leen sax li muy wax bu ngeen jàngoon téere Sëñ jàng jàng ba dañu réer ci ngeen di gën a bëgg Sëñ Tuubaa kon bu ngeen amee cellu ne yaraaxkat kàppa bëgg nañ sëriñ bi waaye xamuñu sëriñ bi kon nag li ñu war def mooy nañ fi bala fu Sëñ Tuubaa boo xam ne ni day jàngal nit ñi kan mooy Sëñ Tuubaa mooy fee ñu dañu réer léegi rek ci réunion Magal Touba bi ñu doon wax am na ku fa kàddu wax ne màggal gi bernde lañ woote waaye nañ ci boole ak jàmm yàlla nañ fexe ba buñ nee allahu akbar lu waay jàppoon na ko waaye dem jàpp ji dem julli ndax taalibe Sëñ Tuubaa war naa jomb diine di ko jàpp gis nga ab taalibe dëgg mooy ki boole diineem ak telleem saaba yi li ñu am lépp li leen ko may mooy ak taalibe ak taalibe nag mooy sa diine day mat sëkk sëkk sëkk diine du la jam ci kenn war diine du la jam fenn waaye nga mottale te sa góorgóorlu bopp boo xam ne nii sa góorgóorlu bopp nga xam ne yow da ngay fexe sa saa yi nga am ci àdduna yëpp loo am jot lépp danga koy delloo yàlla mi la fi andi ndax tey li leen suñu borom teg muy bi woor dañuy wax lu ñaaw fekkee def nga def nga loolu rek yi ñam ci waxtu wi ngay am pour noppalu bu la neexee nga noppalu tëdd waaye doo am yiw waaye doo am mm, tiyaaba tamit doo duñ la lu bon waaye doo am yiw waaye ak bi nag mooy say saa yi nga xam ne nii say say jëf wees na ko sa saa yooyu dara bañ cee nekk saxaaba yi noonu la ñu yeewoo woon ci yonante ba tax moo leen mooy martaba yi ñu am seen diggante yàlla yëpp kon ñun tay bi tay bi si jeexal ko ci lu neex yàlla nañ nañu nañu nekk foofu kon bu ngeen defee ne. daara ji nañ nañ ko def muy Kër Sëñ Tuubaa di daara joo xam ne ku fi génnee wala ku fi nekk di mag wala ndaw boo bëggee xam sa diine wala bu bëgg teg ci yoonu jub dañ nekk loolu liggéey bu rëy rëy rëy rëy kon ñu ngi leen ñu ngi leen ci loolu loolu yi ngay wax da ngaa baax rek waaye ñun ba ngeen fi njëkkee ñëw wax ñu lañ xam ne léppay lépp day mot lépp day sotti ndax pas-pas bi la gis nga pas-pas mooy lépp léegi laa koy wax ñu ma doon ñoom yus ñu ne leen màggalu Sëñ Tuubaa nañ ko fonk liggéeyu Sëñ nañ ko fonk bu kenn ne sama doole dafa néew li ma bëgg ci màggal gi mënuma ko déedéet bu kenn ne kër Sëñ Tuubaa yi ñuy tabax fii li ma ci bëgg dafa néew gis nga boo gisee jaayante yooyu gis nga xam nga euh, ñun taalibe yi comme nii pas-pas yi day yëm suñ mu duuf day wax ba pas-pas yi yëm kii ne jaayante naa vingt ans ba mu koy jaayante mu dugg la ci moom mu gër la ci moom amaana sax denc ko waaye àll ji ñëw na ba mu ne kër si tubaab gi danaa ci jaayante vingt ans diir ba mu koy wax wér la ci moom bu fekkoon yor na ko chance da koy génne chance da koy waaye pexe seytaane boo bari doole bari doole bu génnee rek seytaane dana fa teg ko ba leen soxla ndax seytaane suñu borom da koo may muy jëfandikoo ci nit ki nu mu ko soobee bu demee tëdd soxnaam seytaane mën naa yaay ma sama lekk kilifaam daa ci waaye moom moo gën a jege Sëñ Tuubaa moom Sëñ Tuubaa laa bëgg moom laa am waaw parce que ba ci biir nag moom waaye moom moo ñu gën a jege Sëñ Tuubaa